produit yi lii mooy euh, ngeen gis nii mooy cuuraay lii lumu bi mm-hmm. efficace la def baax lool macha allah mm-hmm. cuuraay bi vingt cinq mille lay jar mm-hmm. am na diwu karaw bi li may nit karaw macha allah efficace na lool ci sëqal karaw ak dindi site de cheveux ak leel ku ko am da koy dindi ba mu set ak crasse ak ñi nga xam ne dañoo napp bii produit yi mooy pour wàllu néegu sëy ñi am néegu kàttan ñi am faiblesse sexuelle ñi am problème mu sëy ak problème érection yëpp daf koy dindi ba mu set waaw li nga xam ne dañ am problème ndox ci wàllu sëy loolu ñun dañ koy faj ñi nga xam ne buñ sëyee duñ am doom mën nañoo sëy waaye yàlla defut ñoom ñu am njaboot. mu ndax kii euh, hémorroïde externe externe. dañ koy faj ba mu wér prix bi nee na. waaw kooku bu live bi jeexee dinañ def prix bi ci kii bi mm-hmm. euh, bu live bi jeexee nga oote 78. cent 162 64 64 même bu fekkee dañ la programme opération mhm. soxlawu ko boo ñëwee bu ñu la joxee garab yi boo ko naanee mu deñ mhm. et am na looy def ci kii bi rek mu seey mhm. efficace la def baax la def lu mu yàgg yàgg boo naanee garab bi mu deñ garabu hémorroïde bi mu nekk nii bi garab ndoxu siti bi la garabu hémorroïde bi moo nekk nii euh, képp koo xam ne euh, soxla nga garabu hémorroïde mu ngi nii bu dee ndoxu siti la mu ngi nii hémorroïde moom ñu ko xamut bëreetul léegi Mm, euh, mooy ñi nga xam ne dañuy serré ñu am ballonnement ñi nga xam ne dañuy doo dañuy dem toilette dañuy am jafe-jafe ci seen dem toilette loolu moom mooy euh, hémorroïde da koy sabab même ñu xataa ñu am colopathie sax garab bi daf leen dimbale donc garab bi baax na efficace na trop képp ku ko naan da ci gis sa bopp beneen bi ci mooy garabu ndoxu siti bi ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ci ñoom ñu am yaram bu tàng ñi am bouffée de chaleur mooy yaram bu tàng ñi am euh, odeur ñi nga xam ne dañu am odeur seen yaram tu ñaqee muy xeeñ ñi nga xam ne dañu am baaraami tànk yi weex yooyu ñi nga xam ne dañuy wax am euh, xasan bu ñu sangoo seen yaram di xasan ñooñu ñëpp loolu ndoxu siti moo koy def bu mu ci mënti doon boo jëlee garab bi ndoxu siti bi incha allah yàlla na la saafara ba nga wér ci jàmm am na ay savon yu ñu fi jaay yoo xam ne bu dindi cat la ak euh, insomnie ak euh, tache ak ñi nga xam ne dañu am peau savon yi moom lay dindi mu mooy li ñu rangé ngeen gis ko Euh, cuuraay bii nag moom day ubbi wërsëg day dindi saytaane day dindi tëju day dindi cat day dindi rab day dindi dëmm yaakaari tas yeeg gàllankoor yi ak ñi nga xam ne seen loxo dafa bënn lu ñu yor mu dem bii daf koy dindi incha allah efficace na ci lool te baax na ci ñi ko xam ne mos nañ cuuraay bi ñoom xam nañ ko loolu mooy produit bio naturel yi man mi maa koy defar képp ku ko soxla boo oowee ci numéro 78 162 64 64 incha allah da ci mën a am am na yeneen xeeti jàngoro yi nag yoo xam ne day dal nit ñi dañ koy traité comme lu mel ni diabète lu mel ni tension lu mel ni arthrose lu mel ni nerf sciatique lu mel ni euh, hépatite B yooyu yëpp dañ koy faj yàlla defal nañ sutura am nañ ci ay garab yu baax dañ ko pro dañ ko exposé wul fii rek waaye macha allah dañ koy traité bu baax te am nañ ci expérience yàlla may nañu ci garab yu baax te may nañ ci xam-xam tamit macha am na yeneen xeeti ñaan nag yoo xam ne dañ koy def lu mel ni ubbeeku ci wàllu wërsëg lu mel ne dindi gàllankooru nit lu mel ni tëju nit ku tëju ak koo xam ne dafa am rab koo xam ne jinne daf ko jàpp koo xam ne rab daf ko jàpp koo xam ne dañ ko liggéey koo xam ne dañ ko yàq yépp dañ koy defar loolu yépp dañ koy dañ ciy liggéey nga xam ne dafa bëgg wërsëg am yaatu koo xam ne dafay jaay bëgg njaayam yaatu koo xam ne dafay liggéey bëgg liggéeyam bi du yàqu kenn du ko ci gàllankoor pour ñi nga xam ne ñu bëgg protection am nañ teraanga am nañ place bu baax bëgg bañ ku leen xeex loolu yëpp am nañ ci ay xeeti ñaan yoo xam ne dañ koy defaral doomu aadama yi euh, pour protéger leen ci ñi nga xam ne dañ leen di xeex mystiquement pour ñu am protection bu baax loolu lañ koy liggéey ñi nga xam ne seen liggéey seen wërsëg dafa am fu mu yem benn niveau lay yem mënuñu ko dépassé ñooñu tamit am na yenn ay xeeti ñaan yoo xam ne moom lañ leen di defal pour seen wërsëg gën a yaatu ñi nga xam ne dañu nekk ci business duñ gis du résultat lépp lu ñu liggéey bu amee dara du loolu day seey loolu tamit am na ci ay xeeti ñaan yoo xam ne dañ koy def pour nit kii di gis li muy def bu amee alal mu mën koo réya mu mën ko jëfandikoo waaw loolu yëpp dañ ci dañ ciy yëngatu incha allah macha allah euh, macha allah waaw kay mi ngi noonu euh, numéro téléphone bi nga fàttaliwaat ko. 78 la 162 64 64 mooy numéro bi. 78 162 64 64. incha allah produit yi tamit disponible na Pikine ak parcelle. Uh-huh. Pikine ci wetu euh, gaaraasu Kara Ndoye Kara Petit dem Guédiawaye. Uh-huh. Euh, bu dee parcelle la Fadia cité Fadia la en face bureau doore cité Fadia boutique baa ngi foofu. Hmm. incha allah ku ko soxla rek produit yi mu ngi foofu noonu boo demee mën nañ la ko xam tamit boo ootee ci numéro bi ma la ma joxee noonu mën nañ la tegtal. Hmm. bu dee fii nga bëgg a ñëw ci Yoff Apexi 2 ci hmm. ginnaaw cimetière jàmmalaay bi. kooku moom tali bu ndaw bi nekk ci ginnaaw cimetière bi. Euh, Baye Fall jaayee café boo fa demee rek. boo leen laajee kër Cheikh Omar Diop ñu wan la ko incha allah. incha allah.